koor ñëw nga def nii ay ca laa ngi nii yaay fa la grande na pour accueillir ay ganam jàmbaar jaa ngi nii jàmbaaru maam Cheikh Ibrahima Fall jaa ngi nii yaay Fall baa ngi nii la grande voyante dom day le chanteur maa leen ziar bismillah yëg leen ngeen toog yëg leen ngeen toog yéen a mën café bu neex yéen a mën a tollu suukar bu du ëpp yéen a mën a jox café bu dul tàkk xol wallaay yéen a mën a café axlu ah café jërëjëf café café café gi café yaay faal la nag bu ko fàtte moom la ñu ubbi woon sa boutique ba di ko inauguré café yaay faal nee naa la day faj ko xool naa ko ci inauguration bi café yaay faal day faj bégal jaam ñi yàlla bégal la moom Cheikh ku mu fat doo fa naan bi dee ku la fat macha allah am nga sa barke ndey am sa barke baay lii ku amul barke mënu ko macha allah ku ragal dara foo bëgg a yegg dañ fa yegg incha allahu rabbi di la ñaanal gudd fan ak wér ak yokkute bu sax dàq. meer ak kon yaay jaaree na bëgg nga ñëw Ndakaar nag bëgg naa baax di bañ lu bon yaay faal li mérite la ci yow yow yaay faal loo amul tey boo léegi di nga am lu góob Ladies and gentlemen. aussi bi yaay ñëpp la woo woo na jànkat yëpp moo waral ku ci ne rek da nga am heure kon ñu dogu ba pare incha allah rabbi. mais mais yaay faala ngi noonu de ah mais damaa xam ne jox benn doomu aadama mu mu ndogu rek ni mu mittee waxantuma laaj nag lii lépp nga dajale leen fi kooku mooy yaay faal bu ko neexoon ni damay ñaanalaate dong de waaye deful lool de dañu dama leen di ñaanal ba pare di leen ñaagal mu ngi noonu moom yaay faal. kii ba de moo ñaa gis nga ko ci géej gi. kii moo njëkk a wax ni. élection yi dañ koy puus. mii la gars yi naan est-ce que dina am am ñu puus ko. mu jékki-jékki ni ñaan ma ko yàlla deret ji dina bari mais keroog defe naa ni gis nañu ko. yaay faalu ngi noonu. léegi maa ngi koy bàyyi xel. yaayu xale yi. xale la nag de waaye ah jëful jëfe xale xam nga ni yii xeet. hasard waaw. barke Seex Ibra maa la lool Eva daa baax barke Sëñ Tuba. comme ça ñu ànd ak moom léegi ñëw leen ñëw leen yéen. yaa fa ñëwal yaa fa ñëwal yaa fa ñëwal. si ginnaaw ah. Le président des Pataay yegg si na muy alaaj